Hi guys, how you doing? Hope that everybody's doing great. Welcome back to my channel. It's your brother Gumbo Joe from Apron de Langawalaf. Welcome to another lesson. It's all about 20 phrases you need to know in English, in Wolof, in French, and uh, in Arabic also. So I just would like to remind you to remind not to forget to subscribe. Yeah Okay guys, subscribe to my channel, hit the subscribe button. Okay, turn the notification so that you may receive our notification. Ok, so, salam alaikum warahmatullah guys, ñu ngi leen di baaxoo di leen j'espère que vous allez bien, c'est votre frère Gumbo Diaw de apprendre des langues en wolof. Bienvenue, euh, <clears throat> a ngi am tawfeex baax baax, dara leen jàmm baax a baax ci seen jàngum anglais. comme niñ koy defee saa su nekk jox leen 24/6 yoo xam si da ngeen ko soxla ci njàngum anglais waaye tamit dina leen ko tekk ci wolof français ak euh, arabe ko defee euh, mu gën a yaatu ku ci nekk euh, gis sa bopp ok so di leen bu leen fàtte abonné gaay abonnez-vous et likez et partagez les vidéos gis nañ ne gaay yu bari ñi ngi seetaan te abonné woon peut-être xëy nañ ko dañ ko des fois mën ngay seetaan di fàtte ne yow abonné wala fekk voilà des fois ngay seetaan yaakaar na abonné fekk ni donc bu leen ko fàtte gaay donc moo tax toujours ñu leen koy fàttali abonnez-vous dina ñëw dimbale pour ñu gën a mën a booster chaîne bi ok loolu tamit dina ñu motivé donc kon bu leen ko fàtte ok donc restez jusqu'à la bout euh, <coughs> la fin de la vidéo donc euh, so without further ado ok let's dive into it I'm looking for someone. I'm looking for someone. I'm looking for someone. Dafa am ku may seet. Dafa am ku may wër. Dafa am ku may seet. Or dafa am ku may wër. Je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un. Or you can say je suis à la recherche de quelqu'un. Je suis à la recherche de quelqu'un. Ana abhathu an shakhshin. Ana abhathu an shakhshin. I'm looking for someone. I'm traveling tomorrow. I'm traveling tomorrow I'm traveling tomorrow damay tukki suba damay tukki suba damay tukki suba je voyage demain je voyage demain je voyage demain أسافر غدًا أسافر غدًا أسافر غدًا. I'm traveling tomorrow. Everything is fine. Everything is fine. Everything is fine. Lépp jàmm. Lépp jàmm. Lépp jàmm. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. كل شيء على ما يرام kullu شيء على ما يرام كل شيء على ما يرام أو كل شيء بخير everything is fine okay guys don't forget to subscribe okay don't forget to do it kon gars yi di leen fàttali rek bu leen fàttali bindu ci bi bu leen xoolee ci suuf am na benn euh, bouton bu bind donc bu rouge donc ngeen cliquer ko te activer petit cloche bi bu ko defee di ngeen tax day euh, saa bu ñu dugalee leçon donc googu les gars n'oubliez pas de vous abonner لا تنسوا الاشتراك يا أصدقائي وأحبائي الكرام Okay, let's move on to the next one. Please take a seat. Please take a seat. Please take a seat. Baal ma nga toog. Baal ma nga toog. baal ma nga toog veuillez vous asseoir veuillez vous asseoir veuillez vous asseoir tafaddal bil juluusi tafaddali bil juluusi please take a that's not possible that's not possible That's not possible. Loolu mënul nekk. Loolu mënul nekk or you can say just say mënul nekk. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. هذا مستحيل or you can say هذا غير ممكن هذا غير ممكن هذا غير ممكن هذا مستحيل that's not possible everyone makes mistakes everyone makes mistakes everyone makes mistakes ñëppay juum ñëpp ñeppay juum tout le monde fait des erreurs tout le monde fait des erreurs tout le monde fait des erreurs or tout le monde commet des erreurs al jamiu yukhti'u al jamiu yukhti'u aw yukhti'u al jami' al jamiu yukhti'u everyone makes mistakes I swear to God I swear to God I to God maa ngi waat ci Yàlla maa ngi waat ci Yàlla maa ngi waat ci Yàlla je jure devant Dieu je jure devant je jure devant Dieu uqsimu billahi uqsimu Billahi. Uqsimu billah. I swear to God. Do you know why? Do you know why? Do you know why? Ndax xam nga lu tax. Ndax xam nga lu tax. Ndax xam nga lu tax. Vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi? OK, ou bien tu sais pourquoi? هل تعرفين لماذا؟ هل تعرفين لماذا؟ هل تعرفين لماذا؟ Or you can say أتدري لماذا؟ أتدري لماذا؟ أتدري لماذا؟ Do you know why? It's a waste of money. It's a waste of money. It's a waste of money. yàq xaalis la yàq xaalis la yàq xaalis la oh loolu yàq xaalis la c'est du gaspillage d'argent c'est du gaspillage d'argent c'est du gaspillage d'argent innaha madyaatun lil maali إنها مضيعة للمال إنها مضيعة للمال It's a waste of time It's a waste of money Get out of here Get out of here Get out of here génnal fii génnal fii génnal fii sors d'ici sors d'ici sort d'ici. اخرج من هنا اخرج من هنا اخرجي من هنا here. Don't tell anyone I'm here. Don't tell anyone I'm here. Don't tell anyone I'm here. bul wax kenn ne maa ngi fii bul wax kenn fii bul kenn ne maa ngi fii ne dis à personne que je suis là ne dis à personne que je suis là ne dis à personne que je suis là laa tuxbir laa tuxbiri ahadan annani huna laa tuxbir ahadan annani أو أني هنا. لا تخبر أحدا أنني هنا. Don't tell anyone I am here. I don't think so. I don't think so. I don't think so. Yaakaaruma ko. Or oh, you can say yaakaaruma Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. لا أعتقد ذلك. la أعتقد ذلك. لا أعتقد ذلك أو لا أظن I don't think so. I'm not Senegalese. I'm not Senegalese. Man nekkuma sa senegal Man nekkuma saa Sénégal man nekkuma saa Sénégal je ne suis pas sénégalaise or sénégalais je ne suis pas sénégalaise je ne suis pas sénégalaise ana lastu sénégaliyatun ana lastu sénégaliyatun aw sénégali ana lastu sénégaliyatun I'm not Senegalese You are fired. You are fired. You are fired. dàq naa la aw oh, dàq nan la dàq naa la dàq naa la maam dàq naa la fi nga liggéey dàq naa la tu es viré tu es viré ou oh, tu es licencié anta mafsulun anta mafsulun or Anta Matrud. Anta Matrud. You are fired. He was released. He was released. He was released. Bayes Nako. Bayes Nako. Bayes Il a été libéré. Il a été libéré. Il a été libéré ou bien il a été relâché. Il a été relâché. Utliqa sarahuhu. Or you can say tamma al anhu. Tamma al anhu. Tamma al anhu. He was released. I apologize I apologize I apologize maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu Je vous présente mes excuses je vous présente mes excuses je vous présente mes excuses ana a'tadiru ilayka ana a'tadiru ilayki أنا أعتذر إليك. I apologize. We will think about it. We will think about it. We ci xalaat. Dinañ ci xalaat. Dinañ ci xalaat. On va y réfléchir. On On va y réfléchir. Or oh, you can say nous, nous y réfléchirons. Nous, nous, nous réfléchirons. Nous y réfléchirons. سنفكر في الأمر سنفكر في We will think about it. He was born in Senegal. He was born in Senegal he was born in Senegal Sénégal la juddoo senegal la juddoo Sénégal la juddoo il est né au Sénégal il est né au Sénégal il est né au Sénégal wulida fi Sénégal wulida fi السنغال ولد في السنغال He was born in Senegal She grew up in Mauritania She grew up in Mauritania She la màgge Gànnaar la màgge or Mauritanie la màgge Gànnaar la màgge Elle a grandi en Mauritanie. Elle a grandi en Mauritanie. Elle a grandi Nashaat fi Mauritania. Nashaat fi Mauritania She grew up in Mauritania. He says that he is thirsty. He says that he is thirsty. He says that he is thirsty. Nee na dafa mar. Nee na dafa mar. Nee na dafa mar. Il dit qu'il a soif. Il dit qu'il a soif. Il dit إنه عطشان يقول that he's all for me today thank you for list of watching so i'll see in the next time but don't forget subscribe like and share our videos okay guys donc loolu moo doon leçon bi tey am yaakaar baax a baax ni am na solo donc bu leen bu leen fàtte abonné abonnez-vous likez et partagez les vidéos bu leen ko fàtte les gars اوكي شكرا لكم على المشاهدة يا اصدقائي الكرام ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس اوكي بارك الله فيكم في امان الله Please then have a good night or have a good day. Bye bye.